am na solo eh, ci li ñuy waxtaane ak tàggu rasulilaay bi nga xam ne dégg nga ko sallallahu alayhi wa sallam également eh, thème bi nga xam ne père bëgg naa nga sànni ci tuuti kàddu tuuti rek lu jëm ci thème bi muy partage bi nga xamante ne quand ci weeru koor la ñu nekk et c'est important eh, mais ndax dafa toll ci teraanga wala gaspillage lan nga ci wax waaw gërëm bu baax Fatou Abdou xam nga lislaam mooy religion bi nga xam ne dafa wàcc ci xeer yëpp moom moo ko tax a jóg te fu mu dem rek euh, dafay am loo xam ne da koy jël ci ñam fekki moo tax ñuy wax sax l'islam noir euh, soo seetee lu bari lu ñuy def nii gannaaw bi li nga xam ne mooy ponk bi mooy ashhadu an laa ilaha illallah muhammad rasulullah wa sallallahu alayhi mooy shahada bi euh, ak ponk lislaam yi li ki topp mooy def lu baax def ak def lu bon ak la mesure parce que yàlla dafay nat doomu aadama ci mesure dafa bëggu lépp loo xam daf koy def loola mu am fu mu ko yemale. waaw mu bañ a xaabaabal. Mhm. loolu loolu l'islam dafa nekk ponk bu rëy ci lislaam gannaaw yooyu nga xam ne tudd naa ko euh, soo demee réew yi ñi bokk l'islam yépp weeru koor dafa nekk weeru weeru teraanga soo demee eh, Màkka wala yeneen dëkku araab yi suñu ndogoo lépp lu neex lépp dañ koy indi teg képp koo xam ne amuloo sax wala nga am ku la ëppale daf lay boole ci ndogu bi parce que loolu mooy yaatuwaayu lislaam pour que ñeneen ñi mën a mën a ñee lislaam ba mën a dugg si parce que moom mooy dernier religion bi mooy l'attractivité le fait que nga gis dara nga bëgg ci ñëw moo tax Cheikh Ahmadou Bamba euh, indi bernde gannaaw bi mu indee liggéey ñaq leen ñaq jëriñu dafa indi bernde bernde mooy yow li nga am nga liggéey ko nga seet ci la ca gën a neex nga jox ko ñeneen pour que ñooñu mm-hmm. yëg seen bopp ci biir l'islam bi c' est important donc dafa am solo. Mm, c' est important muy muy le partage alors. muy le partage man Arabie Saoudite. 2004 mm-hmm. euh, dama dem mag sama soxna. dernière semaine bi ñu dem nekk benn hôtel bu américain bu ñu tuddee Crown Plaza ma fay parce que falaa falaa Corée ma fay ay douze jours bu ma ñëwee di di di di laajte di def check-off bi pour dem. may xool man est-ce que am naa ay excès pour ma fay ko ñu ne ma am nga fi xaalis ma ne mais comment je peux que ma fi ñu ne ma non am na benn émir borom alal boo xam ne nee na hôtel bii Crown Plaza weeru koor yi ñu ko fi liñ fi lekk yépp moom jël na ko en charge donc ñu ñu ci la déposé woon lekk ba donc loolu dafa am solo donc partage bi dafa am solo ci l'islam alors donc man euh, d'accord naa ci ñu ñu ku am nga bokk ko ak ñi amut moo tax da ngay gis sax fii ci mbedd yi bi corona amul nit ñi di togg ay ndogu nit ñi di ñëw di lekk da ngay gis ci doy sa demee dëkk àll bi soo toggee lu neex da ngay dem seet sa waa koñ bi ne leen tey lu neex laa togg ci weeru koor bi ñëw leen ñu bokk donc lu am solo la. Mhm. mais yeneen yi nag ay aada ak ay yoo xam ne jigéen ñi ñoo ko ci yokk. par parfois mu nekk dans dans l' excès alors bu ñu bu moo ko neexal mhm, bu ñu ñëwee monsieur le ministre ci ci actualité. Euh, sànq ñu ngi woon peut-être ci mbir moo xam ne xaw na weesu mi ngi ci kanamu yoon mais dafa am lu ci bees. loo xamante ne euh, jëluñ bi ñu dénk euh, wàllug euh, mbirum yoon moom moo ko xamle muy une commission indépendante boo xam ne moo war a saytu ngir topp les victimes yi nga xam ne amoon na et bu ñu sukkandikoo ci Amnesty International bu Sénégal douze ou treize victimes de manière officielle mais mu yokk nag entre temps loolu noonu yow ban jàngat nga ci am. waa xam nga dañ nekk jamono joo xam ne def jamono riir la li Cheikh Amadou Bamba doon wax ba boo xam ne dañu jël fen def ko dëgg jël dëgg def ko fen te fen dafa am riir riir moo xam ne euh, soo ragalee sax dangay ngay daw euh, du la fa fekk mais yàlla dafa wax ci alxuraan ne certes la vérité apparaît le mensonge disparaît car le mensonge est lu mu yàgg yàgg yàgg fen day toxu su dëgg ñëwee ne woon mu ne certes dëgg dëgg su dëgg ñëwee fen day toxu ndax fen ci toxu la dëgg donc riir mi am ne yëpp man jàpp naa ne dëgg dana feeñ commission bi manta àtte Adji Sarr ak Sonko commission bi lan lay mën a lan lay mën a def comme ni nga ko waxee yàqu-yàqu yu fi am nit ñi toog ñu leeral ko ñu xam kan moo responsable ñu xam kan moo xam ne yaa ko sos waaye sénégalais yi li nga xam ne du fond de leur cœur yi nga xam ne yàlla rek moo tax mu jóg atte bi nañ ko bàyyee juge ñu atte ko ndax euh, Sonko kenn mënu koo setal ci wax kenn mënu koo tuumaal ci wax. léegi su tuuma responsabilité yooyu tuuma am na. est-ce que état du nekk juge et partie monsieur le ministre su fekkee ne ñi far ci état ñëpp jàpp nañu ne moo wax mortal combat et que moom il est en quelque sorte responsable. ci li nga xamante ne moom moo fi amoon est-ce que bu fekkee dañu ko taxawal jëriñ ñu dénk wàllu ko yoon ci conférence de presse bi mu joxoñ ci baaraamu tuuma ci doxalin bu Ousmane Sonko est-ce que tey dinañu mën a tëddee njaaxaanaay ci way gis nga tuuma moom dafa am yàlla moo teg tuuma waaye yàlla defa ne ku ñu teg tuuma dangay ngay teggi tuuma c'est-à-dire Sonko à la responsabilité historique dimanteem ak askan wi ak Sénégal ak njabootam ak jabaram ak doomam ak ñi àndal ak ñi bokkal parti mu ñëw mu teggi tuuma lii ngeen ma teg egginaa ko te loolu kenn fenn lañ ko mën a teggee muy si kanam juge bi mu jàkkaarloo moom ak moom ak moom ak Adji Sarr état koo taxal keneen mënu koo setal lu mooy loolu donc dama yaakaar ne alors ban pertinence par rapport justement à cette commission indépendante parce que euh, avant ça ko jiitu état du Sénégal génne na mémorandum euh, euh, wax ci nay ji ne que kii di Ousmane Sonko peut-être nommément entre guillemets parce que mhm. lecture boobu la ci M2D def exemple nommé kii di Ousmane Sonko ne peut-être moom moo tax lii yëpp am parce que moom moo woote la révolte ban jàngat la ñu mën a def ci commission d'enquête indépendante boobu bu fekkee tey war nañ bàyyi justice faire la pertinence tax lan moo tax commission war mooy li a wax léegi état jóg def na mémorandum teg waa Sonko yi jóg nañ teg askan wi gis nañ ko am na ñoo xam ne yàlla rek moom moo tax ñuy wax su boobaa nañuy teg ñu génne les faits réels comment les faits se fekkee ne Sonko set na ci nga xam ne set na ci su fekkee ne setuju ñu xam ne setu si bi moom mënut a que ça c'est historique et loolu juge moom a ñàkk mais est xam. Ah, nit ah mais yow amoo confiance que ne euh, cette commission d'enquête indépendante mën na aboutir quand même ci ay solutions. ma ne doom ji juddoogul mënumaa wax day xonq wala day ñuul wala day vert wala day gàtt wala day day dugg eh, day gudd eh, wala wala wala wala day gudd. ëmb na doom bi nañu bàyyi doom bi juddu waxuma doomu Adji Sarr dama ne ëmb na doom c'est-à-dire am na ñu ngi koy. sos am na na loo xam ne ñu ngi koy wax. monsieur le ministre ça veut dama ne la non bañ ngeen jaawale ëmb ak ëmb. damaa bëgg a wax ne am na loo xam ne. ñu ngi koy ñu ngi koy séenu ñun nit ñi yëpp ko séenu nañu bàyyi ba mu ñëw bu kenn ne commission bi dana baax commission dana bon nañu maandu nañu maandu ci nit ñi ndax yàlla dafa bëgg ku maandu dañoo nekk ci weeru koor ña nga xam ne ñoom la Sénégal yi jël nañu maandu ne jox leen d'avance ne yaakaar nañ ne la Sénégal yi xaar ñoom ba tax ñu tànn leen ba nit ñi nangu ko ñooñu mën nañ koo def mais bu kenn taxaw naan woyu commission bi nii no loolu c'est du dilatoire ci tubaab mooy nga bañ dara am ngay di diital pour loolu du am ñun ñëpp du yow du man du keneen nañu bàyyi xaar xamaguñ kan la ñuy tànn xamaguñ la ñuy tànn la ñuy def nit ki mënoo ko juger te ju doogut mais lan ngay tontu analyste politique yi jàpp ne que état du Sénégal su bëggee étouffer benn mbir rek euh, taxawal lii di commission d'enquête. non dafa am analyste et analyste kuy analyste da wax sa diggante ak yàlla mu tax mais télévision yi ñoo fi gis ñëpp quatre vingt pour cent yi dañuy ñëw tuuma. tuumaal nit ne état état nii la war a mel état nii non c'est-à-dire que ñun nañu maandu. autant su amee ñuy tuumaal nit autant am na ñuy def moo tax nag Sénégal yi bu ñoo bon. Sénégal yi mu yëpp mënu ñoo bon am na Sénégal yu baax nañu jàpp ne ña leen di ña di tànn aussi ay nit ñu baax lañ danañ tànn ñoo xam ne ëllëg seen diggante a yàlla dañu def mais su fekkee ne ku jóg ñu ne baaxuloo kon kenn dootu àtte ci Sénégal. alors fi may terminer. Mhm. comme waxoon nañu ne tuumaaloon nañu ne ñoom juge bi yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana du sekk aussi waxoon nañ ne gaa yooyu baaxuñu parce que euh, way ñii wóoluwuñu leen comme yàlla écarté na ñooñu ñëpp kon nag am naa yaakaar ne na Sénégal def confiance ne ñëpp ñoo bokk bon ku mën a ñëw ñu teg ko fi nañ ko seetaan mu woo ñi nga xam ne ñoom ñaar ñoom ñoo def mbir mi ñu àtte leen Sénégal yi xam fan la dëgg féete parce que lii kenn mënu ko américains yi nee nañ euh, Washington Post le 8 mars nee na lii kenn mënu koo yóbbu ci gis-gisam ci perte et profit parce que su fekkee ne def nañu ko su ëllëgee jigéen ñi ku ñu fa yàkkataanati ëllëg wala ku ñu fa def leneen yow amoo foo koy jooyee ndax lii wéyut kon ñu Sénégal yi nañu ànd maandu ne Sonko xamuñu yaa def xamuñoo deful aju saar xamuñu li ngay wax dëgg la wala du dëgg waaye nañu ko dem ñu tekku ko ci juge bi yàlla ñu atte ko foofu nit ñi xam fan la dëgg féete loolu daal man mooy ji sama gis-gis alors euh, bu ñu ñëwee peut-être ci li nga xam ne moom mooy démocratie euh, euh, parce que yéen bi ngeen fi nekkee bi nga nekkee ci régime mu président Abdoulaye Wade doon nañu wax ne démocratie bi quand même defoon na ay jéego mais je intelligent économiste génnee na benn rapport boo xamante ne yàggul matul sax juróom-ñetti weer beneen boo xam ne The Freedom House également génne beneen rapport euh, jël Sénégal ne wàññeeku na ci ay poñ yu bari ci loo xam ne moo jëm ci démocratie euh, ban jàngat ngam ci loolu. ñaari jàngat laa ci am mooy. Hmm. ku fi yore réew mi dangay mel ni xaj ah dangay mel ni ku yore yàpp xaj baw la nga mel ni bukki xaj dalay baw Ablaye Wade lu nekk lañ ko wax man maa foon yéen fekkee ngeen ko xanaa teel Ablaye Wade baax xanaa teel Abdou Diouf baax xanaa teel Senghor baax. te dafay monter en crescendo li ñu doon wax Abdou Diouf ba Abdoulaye Wade ñëwee dañ ko wax lu ko graw bi Macky ñëwee dañ koy wax lu ko raw donc dama dama bëgg a wax ne li li ñuy wax yow yu ci bëri c'est infondé. mais monsieur le ministre yow mi couvrir nañ la du benn du ñaar nga décrier démocratie bu Sénégal ci ay manifestation ay marche les premières années du régime du président Macky Sall. couvrir ngeen ma ba tàyyi ma nekk ak régime mu Abdoulaye Wade gis ngeen gis Sénégalais yi ñëpp génn di ŋàññi. démocratie Sénégal c'est-à-dire loolu. du loo xam ne du loo mais nga wax ne dañu nekk ci recul démocratique. non recul recul démocratique ma ne dafa yomb ensuite organisation internationale yi bu leen ci kenn nax de. Hmm. organisation yi euh, li ñuy wax kii euh, mbaam bu ndaw la mu dégg ca Berkele wala ku dégg xaw ma loolu moo fi xew gis nga amul benn organisation nationale internationale boo xam ne daa gis benn toit muy dox ci dëkk bi nga ne ci la bokk du amnistie du bi nga tudd du beneen du ci benn ay sénégalais fi nekk ñoo xam ne ku ñëw yore réew mi ñu dëddu la di bind di sànni di ko yóbbu bitim réew bitim réew di jël loolu di ko jël posé Afrique. moo tax Afrique du avancé parce que ñun day waroon a am suñu responsabilité. sénégalais bu nekk nga xam ne yow da nga am responsabilité historique ci sa réew. du organisation internationale ñoo la koy defal. man bokkoon naa amnistie amnistie ñi ci njëkk a bokk. man ca bokk wax naa ko fii kii ub naan seet naa sa tur gisuma fa te man ku ñu wax Ibrahima ñaa ngi sekk moom fa yóbbu ba ñu fa dem cinq personnes la xam nga li tax hmm. maa ngi nekkoon enquête économique nga xam ne dossier économique yi chiffres yi maa ko yore woon Iba ñaa ngi sekk ñëw ne ma nañu dem amnistie maa ngi moom ñu dem bi ma demee ma bokk fa réunion xam ne ñuy laaj lan moo gën a bon ci Sénégal pour nga ñu jël ko ñu yóbbu ko ma ne man du ma renégat ma ñibbi ma ne du ma renégat man du ma toog fii di seet sama réew je suis nationaliste may wax leneen loolu la xam nga lan la man damay wax ne ñi nga xam ne ñoom ñoo yore organisation yi nekk Sénégal dañ xam ne Sénégal lañ dëkk def naa fi conférence vi di visio conférence ak banque mondiale ñi nekk agriculture am koo xam ne expert la woon Thiam je crois qu'il était en Mauritanie xaw ma il leen fay ma ne ma ne leen yéen les hauts fonctionnaires de l'Afrique ñun yéen Afrique moo leen meñ yéen da ngeen war ngeen seet li nga xam ne moo baax ci Afrique ngeen dem di ko défendre mais warul leen nekk fi ay haut fonctionnaire ngeen démissionné banque mondiale FMI ak yeneen institutions yi jël leen ngeen waññeeku di jël loolu di ko opposé à l'Afrique Mais, mais, Monsieur le ministre, ce qu'on ne comprend pas, c'est que les rapports quand même se suivent et se ressemblent. Euh, euh The Economic Intelligence, mënul ñëw euh, génne rapport Freedom House génne rapport wax la même chose on a dañuy dem ba dañuy am impression quand même que ñi far ci nguur bi wala ñi jege nguur bi lool bu rapport bu négatif génne par rapport à l'état du Sénégal ñu jël ko teg de côté parce que gisoon nañ fi bu rapport génne ne euh, Sénégal dafa bokk ci ñu mieux gérer Covid-19 on avait applaudi donc pourquoi ne pas donner un intérêt par rapport génn parce que quel intérêt ñoom tamit la am. Euh, pour wax ne que y eu des reculs démocratiques. non non ay mots yooyu moom. loolu ay wax la rek parce que ñun africains yi dañoo bëgg toujours euh, européens yi di ñu dugal ci foo xam ne ñun duñ fa génn. Le Sénégal a perdu 7 points de 2017 euh, à dañoo bëgg a déglu ma rek dañoo bëgg a dañoo bëgg dugal bés ñu naq ñu ci dans le sous-développement su ko defee ñoom ñooy nekk. ñoom ñooy bind ñoom ñooy teg te ñeneen koy bindal ay ay sénégalais lañ comme yow bon ten ñoo xam ne soo xëyee da ngay dajeeg ñoom dem ak ñoom loolu nag morul yoon man dama wax ne nañu seet suñuy bind ñu def ñaari parti Sénégal lii moo fi baax Sénégal lii lañ fi war a yokk parce que tout pays aussi en besoin d'être contrôlé su defee dans l'administration Abdou Diouf il avait créé le BOM bureau organisation et méthode pour que ñu xool naka la ñuy def ba rationaliser administration bi ba ñu mën a liggéey réew mi exemple yu ñu jël muy bu l'affaire Boubacar Seye euh, situation carcérale bi les prisons yi nga xam ne dañu fees ñu jël ñi nga xamante ne ay exemple yu bari yoo xam ne dañu ko jël les autorisations ou demandes euh, déclaration sax la ñuy wax de marché yoo xam ne dañu dañu ko dañu ko rejeté mais exemple yooyu ñu jël est-ce que yaa ngi ciy bàyyi xel. maa ngi bàyyi xel ne euh, pour balaa li ñuy wax yëpp am na solo. am na ci loo exemple yu yu yoon. dañuy wax rek wala dañuy faussé la lépp. dañuy am na am na li ñuy wax yëpp c'est-à-dire que li ma contre mooy da ngeen di bàyyi li baax di wax rek li bon ñun Afrique dañoo soxla lu baax parce que européens dañuy nax cest à li ñuy bëgg a dugal suñu bopp mooy ñun lañuy sulli suñu ay mbóot di leen ko wax ñoom ñu di ñu gën a bës ci pauvreté bi gis nga organisation yooyu li ñuy wax euh, ma ma jël ma jël kaawu Boubacar Seye xam nga. man d'accord naa de ku gis lu dul dëgg nga reeteet ko nga wax ko waaye dangay am responsabilité yow la nga wax nga dem défendre ko fa nga ko war a défendre si la wooye juge bi nga ñëw parce que Boubacar wax na ko biñ ko ñëwal avocat ñooy génne ay jàngoro daa feebar ak dañ koy nguufaan ak di ko teg ci ay pot ak ay wax wax yu ñaaw yoo xam ne mënoon na bañ am loolu moo tax gis nga sulli ay mbootu jàmbur dafa baaxul dañu nañ nañu bàyyi di weerante dañuy werante ci suñu biir. Hmm. di werante ci gouvernement. Hmm. ndax euh, gis naa benn benn vidéo boo xam ne euh, Serigne Ndiol Foutiyu moo ciy wax ak Sonko mu ne bàyyi leen di weerante parce que weerante baaxul ndax képp koo xam ne yaa ngi jël doomu aadama di ko weer. Hmm. danga am bés boo xam ne. dañ lay weer. gis nga Boubacar loolu moo ko dal parce que li doon wax yëpp bu mujj gi dafa feebar ak euh, handicapé la ak avocat moo jóg di ko wax dañ koy jël di ko teg ci 16. anglaise xam nga nañu xam ne réew mi ñoo ko bokk nañu xam ne on ne peut pas vivre dans une période boo xam ne ère de délation wax lu bon ère de mensonge hmm. da ngay fen air boo xam ne dangay gis sa moroom doo xool li baax ci moom ngay xool li bon nga di wax man dama daan wax ne gis nga nit comme lup la loupe une loupe soo jëmee nga xool ne nga xool ndong gi ndong gi su génnee nga jël loupe bi nga teg ko ci ndong gi ndong gi rek gu bon gi rek ngay gis te fekk na am na leneen xam naa lu rafet ci moom ak lu jekk ci moom nañu xam ne dañu am nation bu ndaw nation bi dafa am retard par rapport à beaucoup de pays bu ñu nangu européens yi di ñu naq ci biir ah li nga xam ne mooy téye sum développement. Hmm. damaa bëgg ñu am ay responsabilité muy yow mi nekk toog ci télévision bi yore sa communication muy kii xam dafa toog ci entreprise am yore ay nit muy kii xam ne dafa nekk di waare kenn ku nekk xam li nga xam ne waruñu ko yàq c'est sacré pour nous. kenn ku nekk xam li nga xam ne danga ko war a defar da nga ko war a suturaal da ko war a sàngu suturaal Sénégal mais jël di yàq deru Sénégal foo toll euh, benn italien billaahi wallaahi taalaahi moo ma ne benn koo xam ne moom moo ma woo mu ne ma Farba opposition wala bokk mu ne ma Farba suñu der yàqu na Italie billaahi wallaahi ma ne ko lu ko yàq mu ma def bi ñuy wanante ay reyante yeeg ay saaga yeeg ay bon yi mu ne ma gars yi dañuy daw billaahi wallaahi taalaahi benn jigéen moom woo xam mu may dégg dafa am loo xam ne da koy def tu crois que tu le fais contre Macky le président wala tu le fais le gouvernement mais tu le fais contre ton pays fii mu toll nii su su benn waay nekkoon euh, en Argentine wala mu nekk Brésil mu gis fa benn waay bu ko indi mu gis ñu reyante ci mbedd ñu naan rey nañu fa 10 personnes rey fa 13 personnes mais kan mooy jël naan damay dem ci dëkk boo xam ne dañuy reyante ñuy wane dëkk bi di tàkk ñuy wane rue di tàkk c'est-à-dire à tout Sénégalais ñun Sénégalais war a dellusiwaat ak suñu xel ñu xam ne aire bi ñu dugg nii dafa nekk une aire qui est dangereuse mhm. d'ailleurs qui est prévue comme ni nga ko dañuy dem ba fen nekk ñuy def dëgg jël dëgg def ko fen kon nag nañ delloo si waat xel yi ñu xam ne réew mi ñu yore ñun ñoo ko bokk du réew Macky Sall du réew ministre yi du réew su doom yi la mhm. et puis ñun dañu am responsabilité historique fii ngi toll nii liggéey bi ñuy liggéey soo liggéey liggéey boobu moo mën a jëriñ génération yu ñëw mais ñuy nekk di xeexoog di xulóog yaa bon yaa nangam ba nga xool doo bàyyi dara ci Sénégal ñu am retard boo xam ne duñ ko combler te chaque jour ñu ne Corée ñoom moom ñoo ànd indépendance woon euh, en 1960 ñoo yemoon wala ñu ne la euh, Taïwan ñoo yemoon wala ñu ne la wala ñu ne la fan ñu ne la euh, xawma ay Singapour yooyu ñun dem nañu ay 2000. d'accord maa yeggale fi dem nañu 2000. 2000 2000 ay 2001. première kii bi ñu demee France mooy visite officielle bi xaw ma Sri Lanka la gars yi dëkk ñëw ne dañu bëgg gis Ablaye Wade. parce que bu Ablaye Wade am na euphorie. oui ñëpp di ko dégg ñu ñëw di seet Ablaye di xaar. Ablaye Wade recevoir Sénégalais yi ba ñu génn mu may leen xaalis gars yi di di xeex di xuloo ci ak xaalis ba alors euh, ñu woo Alioune Diop mu génn dem Alioune Diop ñëwaat toog day ab day président Ablaye Wade Ablaye Wade daal ne ko toogal daal di wañeeku ci ñoom ne leen gis ngeen ko de sama ressortissant sénégalais yi nga xam ne ñooy wéru fi de ñoom laa joxoon xaalis ñu koy xëccoo mu ne ko non c'est pas ñun suñu réew dañuy jël benn parti ñu may ko gouvernement bi. Mhm. pour la construction de la nation. ñu jël benn parti ñu jox ko sunu sunu fin fa dëkk. ñu jël benn parti ñu épargner ko ñu jël benn parti ñu koy lekk c'est-à-dire que il faut que Sénégalais ñu changer. d'accord c'est important euh, monsieur le ministre dinañ ñëwaat ci.